booy ñaam Tapha booy Boy Niang li ma ci doon wax xam nga combat boobu ñëwagul. waaw ñëwagul nag daa mel ne ñaari mbër yi présenté nañ leen bërki dem ca Joal. ay yoon bërki dem ñu daje Joal li ma fay lancé rek mooy ñi nga xam ne ñooy ànd ak mbër yi nañu réfléchir parce que ñaari mbër yi ay mbër yu fair play lañu ñoo xam ne amuñu benn problème kenn ku si nekk di nga def sa prestation dem mais ñi ñuy àndal ñoo war a ànd ak seen xel di éviter yenn xeex yi combat bu ñëwagul nga commencé bu combat ba ñëwee fu ñu jëm. li ma la mën a wax nag ci diggante booy Niang ak euh, Tapha Tine mooy ñu bari dañoo jaaxle ci ni booy Niang lu tax mu jël Tapha Tine dafa mën a xeex Tapha Tine dafa mel ni dafa mel naa dafa mel ni kon dañoo fàtte ay qualité booy Niang waaye koo xam ne yow bëgg nga Balla Gaye bëreeg Lac de Guiers li mu bëreeg moom looy looy ci Tapha ndaxte ba Lac de Guiers bokk na ci mbër yi nga xam ni yu gën a baax palmarès ci lañ ci la bokk voilà bokk na tamit ci mbër yi nga xam ne ñi ñu wax ni mën nañoo bëri ñëpp daan na leen Yékini ñëpp dañoo jàpp ni mën naa bëri mu daan ko Papa Sow ñëpp dañoo jàpp ni mën naa bëri mu daan ko euh, Tafa Tafa Gueye mu daan ko Balla Beye numéro 2 soo ko doon lim Issa Pouye ñi nga xam ne dañu ne mën nañoo bari yëpp Lac de Guiers daan na leen te mayu ci kenn dara booy Niang dafa bëreek moom fii ñëpp di ko seetaan quinze minutes yoo xam ne moom mooy xeex moo ko yóbbu ardo moo koy song mooy def lépp ba 15 premières minutes di jeex ñu dugg ci deuxième euh, quinze minutes yi moom ba tey la tax sax loola am fa yëpp moo ko fa def kon su ñu ne ma ngay bëri jéeg Tafatine mi nga xam ne Lac de Guiers moo gën a coriace parce que moo ko daan. Ah, Lac a coriace la Tafatine. ah du moo ko daan. Ah, déet loolu kay dama la koy laaj. déet yow loolu seetaan nga ko mu. daan na ko moom waaye coriace gi kañ laaj laaj. moo ko gën a coriace ki la daan kay moo la gën a coriace. ba pare daan say morom. kon su fekkee ne booy ñaa bëri naa moom loolu mu bëreeg moom suba buy bëreeg Tafatine nit ñi war a waruñoo jaaxle dañuy ñëw seetaan si kay spectacle bi nan lay demee. lan lañ fa la fa booy ñaar di def ban njàmbaar la fay def lan la tafaatin di def loolu la ñu war a seetaan si mais ndax dafa jël risque nangam nangam loolu yaakaar naa ne du question bu nit ñi sax di war a posé wu. risque amu fa. risque mënu faa am. tafaatin du risque. déedéet man bu ñaata combat bari bëri ñu ne ay risque la dama ñëw fekk Aziz Ndiaye mu ma kan la booy ñaa bëgg mën ne ko saaka jor wala les deux mu ne ma bul sacrifier doomu jàmbur booba tolloowuñu ni booy ñaa tollu booba ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom les deux ak ñoom euh, saaka joor a këpp doole ci li ñu gis mais lañ ci gis ci résultat final ba combat bii nag kenn du loo wax ne combat bu yomb la c'est un très grand comba dafa laaj une très bonne préparation ci ci loolu ci lañ nekk waaw nekk nii daal kon tey yéen bu ne suba ngeen di bëri sax pare waa keroog bërki dem bërki dem ca Joalo. boo ñaar dafa ne même bu bu ñu buggoon tey tey tey ñu bëri ko. ñu léegi. waaw promoteur bi dem na sax ba ñu de ba duñu xeex beeg yooyu bëggee bu ngeen bëggee ñu bëri ci koor gi ah, maa la wax li pare ngeen bëri tafaatin koor waaw waaw weeru koor gi ngeen woor ba pare ñëw bëri seeg ñëw bëri seeg moom ànd ak ànd ak shérif yi woor woor ba pare ànd ak shérif yi bëre ma ne Babacar toog di wax ay résultat final kooku yàlla la waaye nit ki mun na am ay programme boppam ñaan yàlla mu defal ko xéewal làmb jooju xéewal bu mag lañ ci ñaan ah. waaw résultat boo xam ne résultat bu positif boo xam ne ñëpp lañu gisoon ci boo ñaan ñu gis te lu ko raw bërki dem moo njaay la leen defal fii ah, ah, manifestation bu neex ci diggante mag Lac de ñépp xam nañu la sawru sawru kii ñeme na leen de. xeex. yaa ngi dégg dana bëri. kii ñeme na leen de sawru Fall nuyu naa. maa ngi nuyu d'abord sama grand <laughs> moom sama moom sama mag la. waaye ñeme na leen. Euh, tey fi ma dugal euh, xam nga boo ñëwee day doom aussi moom mi moo ko présenté woon. di doom moom xam na ci dara. moom booy bi xam na ci dara muy doom waaye kenn day deret. waaw moom deret boole fële. muy combat boo xam ne aussi ni mu ko waxee combat bu neex la risque amu ci làmb moom lépp risque la boo xoolee. man nga làmb lépp risque

waaw la mais kii gis na lii nag moo doon làmb bu njëkk ba Babacar am na loo fekkewul bu njëkk ba mbër yi daanaka duñu wax manager yi ñooy toog wax ñu may tuuti mbër yi kenn ku nekk wax topp ci sa manager la mu wax ba violence du am dara du tey nag dañuy wax ñaari mbër yi taxaw leen da ragalante xool ko nangam ak nangam ñuy ba ma xante bay xeex lii moo daan am yéeri day wax fële adversaire am Moustapha wax fee bu ñu paree seeni mbër topp ca la ñu wax yëf ya daal di fin kon sawru kon daal sawru xam naa yàq kii moom doo ngëneen bi waxante parce que sa grand la waaye daal xam naa tafaatin moom ci li nga jàpp moom yow dimanche dimanche dimanche pare na mais damay dëggal d'abord li mu wax ni euh, euh, euh, ci ci ci làmb asalaal parce que loolu ci ménage des gàtt parce que bu jëkk dañ daan dañ daan dañ daan seetaan ku mel ni ndem si yàlla Jacques gen ak ndem si yàlla Pa ñoo ñu rek ñoo laan def signature effectivement li mu wax nii effectivement bu ngeen fekke woon loolu moo daan mais bu mais léegi signature ni muy def nii bu dee seen classe dañuy toog rek loo ko nar def lu gooy a jege a a ah, a koy indi mu neex mais mais lii bu xana wax nii moo daan neexal lam bu di am da gis ñu tiim la ñu tiim la loo koy def nangam nangam waaye li mu wax nga xam ko mbër mi waxaat nga xam ko da nga koo ragal am na loo xam ne boo nekkee xale boo xam ne dafa entraîné ba taxaw deretam yëngatu am na foo xam boo ko waxee mu gis boppam histoire daal di dekki bu ko defee fant yi seetaan loolu la ñuy daal di xool loolu daal di xool histoire di am kon nag nañ nañu kii li fi wax itam dañ gërëm bu a baax a baax parce que nag wax dëgg yàlla bu ñu waxte dëgg di nitu làmb te man gas dama ni man li ma neex ci moom ci làmbam genre xuloo yu ndaw ndaw muy def parce que loolu yëpp dafa bokk ci ci làmb dara ci moom nit ko nit gënu ko mais façon yu xuloo yi muy def yu ndaw ndawaan yooyu muy def ak yooyu yooyu yëpp dafa bokk ci dafa bokk ci voilà dafa bokk ci promotion làmb di gërëm aussi yeneen promoteurs yi fi itam parce que yéen itam wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg itam am na lu ngeen def ci làmb am na a góorgóorluwaat rek gën a yokk personnalisme bi parce que ñu nag yéen ñoo ñoo bokk ñoo bokk ñoo far te yéen wax dëgg yàlla am na def ci làmb

muy Tapha Tine muy Balla Gaye muy keneen ku mën bu dee menaces yi amuñ problème mbër yi jàpp naan amuñ problème te kenn ku ne seetaan na ren li xew ren mbër yi ñoo bokk ne ñoo bokk ba mais ñoo mayante xaalis mais nag lu tee lépp ñu di ko rafetal def ko sport sportif du caagi na nga takk sa blouson wala takk ngemb dem ki déedéet sportif jikko la sportif jikko la du dem entraîné déedéet bu ñu nee sportif du kii sport rek de déedéet jikko la sa xol day toj ba doo mer doo xeet luy violence doo ko def parce que mbëri ñoo làmb ñoom lam kon ñun ñëpp nañ nañ bokk ndey bokk baay gën a góorgóorlu di rafetal kàddu yi fexe ba ñëpp nekk benn boo déggee fenn fu am problème nga dox wax ca lu baax foofu la làmb toll foofu la àdduna toll. mais Sawru yow fi may jeexale ak yow mooy écurie Ndakaaru écurie Fass dégg naa dañ leen a fusionné fi mu nekk nii ngeen war nekk benn écurie te yow écurie Ndakaaru defe naa ci membre ya nga bokk. nga doon ñoom ñu toll ñoom. man moom déggoo bokkoo ci man déedéet man bokkuma ci. yow en tant que menacé. man bokkuma ci de. man dem ma de. kon yow rek kay des écrit Dakar. Eh, du man rek maay des de man dem ma de. man dem ma bari ñu fa des de. bu ma juumul daal bu ma juumul daal euh, bi kati woote réunion. ñaari mbër daal euh, euh, wax nañ ni dañu ànd ak moom. ñaari mbër de réunion bi ñu def ñun. ñaari mbër daal wax nañu te ñoo ñaar décision ba def jàpp naan li ñuy waxaat bu ñu ca defe naa jógaat nañ ci loola loolu daal laa mën waaye man dama par personnel nga xayma li ma engagé man moom fu ma taxaw dama ko wax du ma ko nëbb du ma man mu dem ma faas kon kat yi rek kay dem ah afay moom la moom daal gis moom daal jàpp naa moom lay dem mais man sawru mi daal ma nga la ma engagé man man mu dem ma ku nekk Dakar day continuer euh, bon moom xam moom écrim moom wax na loolu moom écrim am na droit moom ab écrim léegi yow bu demee yàq xale yi nu ngeen di def waaw pexe du jeex man nag nit làmb la li ci kanam réew li ba yeneen pexe waaw am man am naa yeneen pexe man samay pexe kay pare naa ci nit ñi damay ñaan yàlla sa sa ubbee jàmm ci salaam rek di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Fessox aussi yàlla defal leen. père looy tëjee. waa xanaa di waxaat rek ñi nga xam ne ñooy topp mbër waaw ñi nga xam ne ñooy topp mbër yi ñu éviter yenn violence parce que amul njëriñ làmb joo xam ne xamagoo kañ lañ koy tëgg nga ñuy présenté mbër yi ngeen commencé di xeex yooyu moom vraiment nañu fexe ba loolu deñ